tey ñu am benn journée bu particulier boo xam ne moo ñu fi boole ndax président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo initié chaque samedi chaque premier samedi du mois ñu fas yéene génn ñun ñëpp. liggéey boobu jox ko euh, monsieur le premier ministre euh, Ousmane Sonko ñëpp xam ni collectivité territoriale yi aussi am nañ liggéey ak taxawaay boo xamante ne bu am solo boo xam ne war nañ ko ci def ñun nag. wax dëgg fa am taxawaay boobu lañ fi am yàlla def démb ñu def ñu euh, ñu tabal ñu ndombal tànk def ñu maire de la commune de Patte moo tax tey ci bokk na ci bi ñu jógee defuñu du dara lu jiitu fi wan nit ñi ni ñun liggéey moo ñu tax a jóg jël suñu bale jël sunu peel kenn duñ duñ faxee duñ fas yéene wuñ kenn jiituñu ci liggéey boobu te liggéey boobu incha allahu bi ci la ñuy sax ñuy ñaan commune Patte d'Oie képp ku fi nekk conseil municipal ñu ma doon xëccool ñoom ñëpp ñu ngi leen woo ci liggéey bi liggéey bi ku nekk am nga ci wàll woo xam te ne war nga ko ci mën a def même ñi nga xamante nekkuñu ay conseils municipaux da nga ñu ngi dëkk ci commune bi nekk nekk des personnes ressources ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp tëjaluñ suñu buntu kenn ubbeeku nañ pour tout le monde te incha allahu rabbi dinañ colaat suñu euh, dàll dinañ demaat ci ku nekk woo ko pour mu ñëw ñu ànd ci liggéey bi jëmale Patte d'Oie kanam bu du affaire de quartier du affaire dara affaire commune Patte ñun ñëpp ñoo ko bokk ci loolu la Ablaye Ka di woo ñëpp ñi nga xamante ni dañu ànd ak man te xëy na ñu bokk ak man parti wala ñi nga xam dañu ànd ak man te yéene ma maa ngi leen di sas benn mbir nit soo ko ànd ak moom ba ko dimbali da nga koy saxal ci liggéey bu ma kenn wax ni maire bi waroo def lii bu ma kenn wax maire nga waroo def nangam bàyyi leen ma naturellement maa ngi leen koy ñaan yéen ñëpp nañ ma bàyyi naturellement ni ma mel damay dox damay liggéey loolu la ma yàlla sant jeune laa tollaguma fu may aj samay mbagg damaa war a wàcc ci suuf te incha allahu rabi damay wàcc ci suuf tàllal sama loxo ñëpp jeune yëpp ñu dëkk Patte d'Oie ñu dëkk Grand Bi ñu dëkk Soprim ak fu waay mën a dëkk ci commune bi maa ngi leen wax nañu ñëw ñu def laxasaay bi seen laxasaay la joxuñ ma ko ñoom lañ ko jox Abdou Aziz mu ngi nii taxaw c'est mon frère xamante nañ depuis très longtemps maa ngi moom ci leneen lañ xamante woon ba yàlla def lii tey xëy na am na fu mu féete ci parti politique am naa ma féete mais nga xamante ni laxasaay bi ma jox daa mel ni yow lañ ko leen tax suñu ndig ñu ñëpp ñu ànd laay woo ci jeune jeunesse yëpp di wax ñëpp nañ ñu mag ñi nga xam te ñoo ñu féete mag ñuy suñu papa ak suñu yaay ak suñu nijaay nañu ñaanal xale dafa soxla ñaan ñun ay xale lañ soxla nañ ñaan mais incha allahu rabbi li nga xamante ni moom la ñu war si terrain bi dinañ ci def le maximum di remercier encore une fois madame le ministre dañ koy féliciter ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a le maire félicitations yàlla nañ sa njiglaay waaye li ma lay dénk rek mooy lañ ca nekkee woon xam nga ko yàgg bëgg lañu ñu bëggoon yëpp ñu ko am mu metti woon lool waaye yàlla na méttit woowu yëpp yam ci li ma daj nga continuer ak sa sago yàlla na nga am moyen wu ko commune Patte d'Oie maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa wet saa yoo ma soxlaa boo ma woowee maa ngi teew sawet di la wax nga gën a jàpp Ndiogu géy nga gën a jàpp Julou Ndiaye yéen ñi doon ut tey jii yàlla dogal nga jël ko kenn gënu koo mën a yor sa morom tey lii la yàlla dogal mais na nga téye ñëpp nga ànd ak ñoom na nga ànd ak conseil municipal bi yëpp ñu enfin ñu jël ay problème teg fee te jiital intérêt commune Patte ñu jëm ci kanam Patte d'Oie gis ci seen bopp ndax ñun rek la ñu yaakaar jërë ngeen jëf di gërëm ñëpp